<laughs> souvenir gis nga ay souvenir yu am solo. duñ teg. duñ koy sax a jéem a teg. Eh? di fàttali fàttali ah. non lan la leen def ba ngeen seetaanee tey. non dañoo daw yaram. Eh? non mel ni maa ngi toog ak ñoom fii. ñii dama leen a miin miin boo xam ne ñaar ñii eh? ñett lañ sax. wallaahi bu ma xamee mbayang laa xamee baabu baabu def na ni. wallaahi. maxorji nag c'est mon maître maxorji géej ah moom moo tax nga dugg ci moom waaw waaw hmm. moom ci poussé wax dëgg bi ma génn armée fekk ko aseg naa hmm. waaw fa la ñu xamante hmm. ndeysaan fekk kii defoon naa moom armée ba pare ah génie waaw armée la ñu xamante booba xamul booba xamul ma war a armée la ñu xamante bokk benn troupe dans l'armée ma jógee fa nag dem ma jógee fa dem aseg naa ma jógee ma jógee armée uh-huh. libéré quelque temps après dem aseg naa fekk ko fa ba ni ma ko fekk daal ko ci encore. nga ñu doon lekkee suba. waaw ah. doyen yi sàndarma ñëpp fa lañu doon tase. waaw wallaahi. ñuy wax nag fekk il parle bambara comme moi man mm-hmm. Mm-hmm. un jour mu woo ma rek. kan baabu moom moom Makhura Dieng. fekk suma benn xarit bi Abdoulaye Diaw chef de garage la woon Asegna yéen de Kaolack moom sax moom yóbbu Asegna. li mm. ma xam Makhura Makhura mu ne mais je peux te faire gagner de l'argent hein. sëñ Awa ji mu nga ci am dara man ne ko ma ko waxati. <laughs> kan ma la wax mu ne ma jàngoo xamoo dara. kii uh-huh. man dama rafet. yow da ngaa ñaaw on va faire le duo ma ne luy duo mu ne voilà dëggoo français. duo mooy ñaari ànd di wuti xaalis wala yàlla boole ci lu uh-huh. bari. comme yàlla dafa ñaaw nga man dama rafet mën na laa yóbbaale. ma ne ko bay na affaire daal boo ko ci indee bay uh-huh. man loolu man génn naa ci bu yàgg. mu ñëw mu ñëw sunu garage ne ma seen pël ba bool bi nag lex a kañ yi lee ma ko bëgg a wutal xaalis muy bañ gars yi ne ma topp ko rek. Makhourédia. waaw nii la ma yóbbee Malick yi ñu audité ma. audit bi nag école la woon ah ko. c'est pas facile neex jug def. déedéet. Ah. ah non non non non non bu jëkkoon dañ la daan audité. dañ ma audité ñëw ñu audité la ba noppi toog la ah. ba keroog ñu ne laan ñëwal. ma ne. audit nañ ma un an presque douze mois. ah oui un an. du ma manqué répétition. waay dem naa Mauritanie dem Kaolack fu dem Tamba à Fatick fu dem rek ma dem. té do tardé mo ma aéroport 13 heures trente trois heures lay fekk nañu Cheikh yalla mayoon nako yalla nako yalla ko yàlla xalaat yàlla. c'est une bibliothèque car am na benn bés sax ñom ñuy voyager mais dañ ko romb bari ni mu tok fi mu tok di len xaar. waaw romb ko dem. gars yi gars yi romb ko mais ba ba ko xamu ñu lu xew. da di ko bàyyi. ñu bàyyi ma fofu au début. Cheikh Wa kon dafa amoon kon dafa amoon ay artistes yoo xam ne dañ doon toog ngeen toog yéen di def. exactement voilà voilà effectivement. c'est mhm. Mhm. comme man wàcce bu bees laa woon. Mhm. waaw gars yi wóolu ñu woon seen. léeg-léeg ma bëgg dem si àll seen yoon. alors Cheikh xool un jour rek. mu ne ma non je vais l'essayer il faut ñu essayer euh, Omar Ba. te yàlla mayoon na ko nag boo fuuyee. wala nga réew. ne kii xamul dara ñu ngi sabate mu jël ki fu ki xamul dara. mu def ko artiste principal. bien sûr bien sûr yow mi xam dara moo itteel la mu sànni la fa. waay du la faa def yàlla may na ko loolu Cheikh Tidiane Diop. <laughs> loolu mm-hmm. ku yàlla mayoon loolu la. <laughs> répétition doo tardé de. na jàng mi mais dafay doon loo xam sa deret lay la fëggee rek mën ngaa départ. Mm-hmm. loolu mooy dëgg. mais xëy na jàng bi d' accord man mosuma dugg fa xaw ma sax fu ñuy jàngee. aar xaw ma fu man su ma xoolee seen pièces théâtrales yi. ak moyens yu ñu am léegi. te théâtre yi dàq ko fop wallaay dafa may jaaxal. foofu ngay xam ne dañ ko travaillé yii dañ ko travaillé. et puis Pawali ñun amul woon xaalis. ma wax lu gën a leer. ñun dañ ko bëggaloon suñu bopp sans l'argent. passion kay bu ma la nee on a joué à Banjul fu ne joué nañ fa. on vient avec mais vide. Mhm. dugg ci kaar bi ñëw nga wàcc sa buntu kër di gëstu kaar bi kaar di dem. doo indi dërëm du mbiskit du dara du te mu óor la ne boo boo boo da ngay àgg sa kër war a joxe dépense. war a joxe dépense. sa waa kër nga la toog pour di la xaar pour ndékki. ni nga ne cëpp lu xool kaar bi ba kaar bi réer nga oññee ko dugg. jóge nañ Tunisie ñu ne cëpp ma wàcc. ñaari dërëm indiwaale ko. mais loolu nag exploitation la. nu waaj ah. exploitation la parce que artiste. artiste tey jii bu defee benn PS. te te te dama lay wax. Mhm. bi ma ne bi ma ne ceeb wàcc dugg sama kër ñëw yoruma ñaari dërëm. Mhm. sama waa këram a jox xaalis cent franc xaw ma deux cent franc bi ma demee kër Mbaye ak mii. Mhm. mu jox ma cinq mille. ajaratu mbay mi barke Mouhamed barke yonent bi. miinoon ngeen ko trop. ñun miinoon nañu ko. waaw defal ñu témoignage ci moom ay histoire am. Ah. Mbaye ak Niass. Mhm. ku yàlla baaxa am nañu yaakaar ci moom. li mu doon def fi du ko rëcc mukk ci àdduna. Mhm. yàlla na ko yàlla gën a leeral laax. amiin amiin am na yërëmande joboot la am na diina am na lislaam. ci mhm. mun naa jubale ay nit. moo doon meer ba presque. lépp lu fa lëj wala lépp lu fa jafe boo ñëwee ci moom mu arrangé daanaka rôle yooyu sax lay faral di gën a di jouer ci soo xoolee moom la gën a xam lu xam bu la xasee woo nooy def ni xaay pël bi ñëwal waay fekk man jamono boobu tam damay liggéey ak na mm-hmm. aw ma permission dañuy dem Banjul bu ma demul du baax mag nga xuraj bu ñu amee contrat ñun ñaar bu ñu demul kenn du signé contrat bi mm-hmm. te gaa yaa ngi ñu xeex payi payi mm-hmm. laa jël kii wallaahi bëgg ñu lakk nga ne waaw ñu def ko bu dàq ñu daanee ko ci. Mhm. mais bu ñu amee contrat. Ibou la yàlla na ko yàlla yërëm xarakar jàll. Mhm. moom Sénégal Ndiaye. Mhm. mu ne gars yi bu paa yi demul lu baax ñu banjul paa yi la ñu yaakaar ak Mauritanie bu bay pël eh, demul ak Ngor gi. doonu bu lu fexe ñu yóbbu bu ñu demee nag bu ñu defee trois jours man suma permission jeex na. ma bëgg ñëpp si ñu bañ. yaxara suma benn jigéen yaxara dem. ndeysaan yaxara. ñu ne ko waxal ak sa waa ji ab dof la. mu ñëw di ma neexal nag yow da ngaa soxor xam nga ne boo demee xale yi nii la nii. seet seex mi mu wutal ma certificat médical Banjul <laughs> mooy comme damaa feebar indi naa fukki certificat médical di ko jox suma a seeg la j'avais online kooku itam suma xarit la woon ku ma bëggoon la Babacar Mbengue. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla yërëm mm-hmm. mm-hmm. c'était mon ma ma indi affaire yi ma yàgg nga di ma ne certificat mu jël ko mu def ci poosam mu ne demal liggéey ji. fi nga toll kenn mënatu la freiné. ci aar bi ci aar bi. ba yow bay Eli toll toll toll ci mbayang wax ma ci mbayang. waaw mbayang daf ti nit koo xam ne ki ku yaatu. Hmm. man képp ku xam ne ki nit ku baax la. Hmm. mbayang xamale na maak ak moom. waaw ah, loolu mooy ñàkk soxor. waaw béy këram dama daan ñëw suba teel laa daan ñëw bu ma demee këram laay ndékkee mën na loo lu ñuy añee ma ne ko naa togg nangam. Hmm. mu togg ñu añ. ba rek jóge fa dem répétition. bu ma ñàkkee xaalis mbay di ci xaalisam jox ma ba noppi boole ma ak nit ñu baax ñi. dem na ba mu jógee même tour yi nga xam ne moom la faame RTS ñoom madame Guèye daan def. daf ma daan ànd ak man di fa dem pour danañ ko war ma war le ma ak ñu baax ñi xam ne ñu ngi ak ñi bokk ci tour waaw la daal koo xam ne ki daal yàlla rek koy fay. am nañu yaakaar yàlla rek koy fay te dafa yaatu. Mhm. dafa yaatu noonu mel ci artistes yi ne la mel ci biir Medina gi. Mhm. noonu la fa mel def lu baax boole nit ñi bëggul fekk ku xuloo ku xeex bu jàmm daal la bëgg. loolu sax lay gën a joué ak conseil. loolu la gën a joué Mbaye Niass. Mhm. boo seetlee au fond sëriñ la bu doon góor sëriñ laa koy wax. Mhm. ndax yaatuwaayam ak looy tam ak ni mu baaxee. man dafa ma ne ñëwal kër gi loo bëgg a togg mën a ko maafe wala ay ganaar doomam boobu nekk fii tey. ñu mhm. doon jàll démb. kooku moo doon toggal. defalal pël bi lu ko neex rek su ma kan la woon. Mhm. togg ba neex mu a ma indaale nga la ma ne ko indiwuma dara a ne ñu sa dépend ñaata la. ma mhm. jëkk jotaat te xam ne su ma soxna bu baax ñëw na su ma ngénte benn du ñaar du ñett bari mhm. xam ne su may soxna xam foofu maa koy gërëm foofu te ku bëggoon sëñ Tuubaa la la woon. bëgg na maam jaara loo way nag ma xam mbay ak ñes naxee ko ci sëñ rek.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 ma jël loowu tuuti boo xam ne kenn xam lu mu toll indi sama kër yow suma yaakaar bi ma jógee màkk mu fa jiit moo ko am jeng mais mhm. daal loo wax ci moom. bàyyi lu bari mais yéen dama gis ni ngeen ni ngeen rataaxee xoolal rek démb li yàlla def. Mhm. maa la woo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 mu ne ñaata ñu ne ma ah 800000 la signé de. Mm-hmm. ah ma ne ko 600000 nga ne 800000 dañuy boole. Mm-hmm. Mm-hmm. man leen sàmm bi c'est bu ma ñëwee mu jox ma du ma ci boole wax. man bu ma jëlee contrat bu ma yee wax ci moom ñu ne ko supul bi li ñu ko fay ëpp na ko de parce que neuf ko fay da ko kaaw uh-huh. mën war si gam mën leen noo boole am un jour Abdou Diouf woon fekk Makhoury ji mer na Ibulaay suma booy la woon. Ibulaay Mbay ku baax. dafa ma doon jëli aéroport ñëw nuy joué. Euh, sans daara ko ci quoi. ci école yi. ñu def yi lamba golo. fële ci école benn école catholique kay Kastoor. Maxur yu dégg def nañu ko rek ndeysaan mu xëy dem ci Abdou mu ne ko waxoon naa la pël bi day wor wor na ma. Yamba Golo bi moo Ibulaay ko def démb <laughs> maa la ci complètement ab ab mu noonu ak Abdou hmm? ma hmm. mu ne ma mu ne ma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 parce que fa nu jaar maak moom dañu jaar armée ba nu ñu accès foofu. lu mu am lay dina lay jox ma te ma seedal la parce que wax day indi wax. Hmm. li muy def moom rog ko man moom Piper la. Hmm. day ñëw ci dëkk bi taxal li muy taxal bu ñibbee këram nit ñaa ngi toog di ko xaar koy dem mu dël la mu taxal jox la ak nu moom nu ngeen toll nag loolu nga ci moom. léegi man su ma gisee.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 loolu ak ah, leen jox benn costume li non amul amul sa walis ngay jël. sa walis jël sa walis su xew génn sa armoire lu ca nekk def ci biir. mais yéen yéen type de contrat ngeen daan am ak ay. RTS non dañ ko bëggoon rek. mo ñun dañ ko yéen passion ngeen daan def. passion ngeen daan def ñun kaay joué rek ñu ñëw joué. kaay joué ñu ñëw joué. kaay joué ñu ñëw joué bu ñu paree. ma wax la benn affaire. 4 VR bi ma ko joué ba pare. Hmm. acteur principal. 85000 hmm. la am 85000. quatre-vingt-cinq mille bi ak waxtu wi seen cachet yi ñaata la bu ci gën a rëy man daaw mosuma am yàgg naa ci dara mosoo fayeeku cent mille si kas yi ah, ah dañoo bari yëguma ko de bu ñu seddalee doo ko am mënoo ko am te te ñi doon liggéey bàyyiwuñu Cheikh Tidiane moo doon liggéey ak man Abdou Diaw hmm. ak euh, ki Tafa Diop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 charge oto bi mu fees mhm. ami jëw rom ma mu ne ko sunu waa ji du faj gàcc de kii moo bon kii de jabar ji rek la ñëwal Mauritanie man na noppale ko benn yoon waaw lu ma yor su ma kër la jëm yaxara yaxara ngi ni dëgg li may wax boo ko woon fii nga laaj ko nga ne ko alal bàyyi pour dana fanaan du fanaan du ma farata ci loolu <laughs> léegi lan lañ war a mën a def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 mais ñoom itam marche nag bés bu ma marchoon mhm. nga xam ne ñoom itam marche waaw mais nag mhm. lan na tekk di déglu rek ba xam na loolu am ngeen ministre bu bees am xanaa nag dina ci dina dina dina xam nga sax am na ñoo war a war nga leen a woo ñu gën la mën a leeral lii sax mhm. parce que le doyen Massamba Seck mu ngi fi Medina c'est le fondateur de deux moo moo fondé ko ci fondé jamonoy tey mu ngi fii mu ngi dëgg li may wax li mu ci xam bari na loolu Diop décorateur c'est ñoo de suñu président mu ngi fi dëgg li may wax boo amoon sens woo ñu mel noonu dañ la wax ci siyaasara loo xam ne moo ëpp li may wax li kii di wax ndax yàgg nañ ci mais kenn amu ci dara njaay doo sa ngi ni Kaolack appel fu ne def na fa appel sottiwul maxura ji bi ñu nee seetoo ma xëy dem Njaasaan mu ngi ci dëgg maa ngi ci fen mu ne ma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 Mass Guèye. Ah. fii la dee. kenn bëggul fii la dee. Rama ah. Thiaw fii la dee. Awa Guèye ñoom ñëpp fi la dee mais kenn defal leen ñaari dërëm. ah, ah. Seydou yaa dikkoon yëpp hmm. xam na ko si yeneen Tingéej. fii la <laughs> dee kenn xamatul fu mu dëkk. léegi Makhourédia ba mu génne àddina am ñu bëggoon ñëw. am am li am nañu ñëw sax dégg naa ñoom surtout am na ñëwoon foofu à l'époque ñu ñëw indi affaire ndey asu taaw bi. Hmm. mu ngi dëgg la mu ne leen suma papa bàyyi Paul nee na. Hmm. ku fi indi na ko delloo suma papa ko waxoon loolu ba fi kenn bàyyi dara. ma jógee Touba ñëw guddi manoon na newoon na naa yemale affaire yi ma ne ko suba la saraas yi amul ñetti fan am juróom-ñetti fan. Mhm. teel na fi huit ans kenn ñëwul. suba la ñuy def sarax yi def ñaan bi affaire bi tas na. Mhm. ñu ne ma bàyyi pour ma ne ko tas na moom ma ko waxoon tas na li ma leen wax kay mbu mbaay amatu fi nii la ñuy dem te yàlla di mu la ko doom bu baax la am. Mhm. taaw bi ku am xel. ndey Astou mu gisee fii Padois. jàmbaar la. am na xel te teey na. ndax Makoro ji fi mu fi mu am na jàqare tuuti soxna si moo gën njëkk génn àdduna. njëkk a génn àdduna. Ah, keroog bi Maga Ndiaye génn àdduna ma fekk ko seetoo wax ko sax lay diis si man. Mm-hmm. ndax dama fa jógee 11h ci guddi ñi bi bari ñu téléphoné ma agina ma papa baay il faut teel a ñëw ma ne ko laa jógee maag sa yaay suma yaay moo génn àdduna pàkk làmbaay dañ ko doon Dakar mais la mhm. hmm. ma pour waxi ma hmm. ce c'est pas compliqué. c'est très compliqué. lu jafe. Hmm. ma ma rek bi ah. comme ni ma rek. ma Modou biig laa fi joxe yow foo ne dox jàmm laa fa mën dox ma di mais day diis. ma ne ko man de dama am malaat fii moom laay seeti mais jaar naa kër ga màggat dafa xaw a sibiru rek xam naa ne mu ne waxoo dégg màggat gën naa dund wallaay ndeysaan. wallaay mu ne sama docteur dem na. Hmm. ah oui xam nga yàgg nañu ma yaakaar ay mag ñu wallaay waaw waaw. Hmm. te moom nag est-ce que am ngeen yéen benn genre kuréel boo xam ne bu leen ëmb yéen artistes yi pour ngeen mën a taxaw wax seen bëgg-bëgg seen soxla parce que tamit nag dafa xanaa lu mel ni da nga ñu defal. ñu mel nii rek dañu mën saa ñu dajale. am na sax association. am na association mais na loolu tax koo jóg. Mm-hmm. xam naa daal pour jàppale artistes yi ku tax a jóg. mais pour toog wax suñu soxla wax lu ñu naxare et tout tey moom wax fii rek lañ ko mën a fii rek lañ ko mën a tey jii dama ne ah. bu ñu jooy ne ah. jooytu leen li ngeen bëgg ñu yëg ko parce que damay wax ne euh, dama jàpp ne ministre de la culture mi ñu seetaan wala yooyu pour artistes yi nañu bàyyi ba ku génn àddina ñu ne jox nañ fa jaxalu lii jaxalu lii amul njariñ ah mm-hmm. koo xam ne ordonnance su francs mu génn àddina nga takkal ko nagu 200 amul njariñ ku ko nar defal booy ba na ko bàyyi dinaa la témoin nag ma wax la ko bés ni ni ki tey ma naa defal loolu. xaar ba ma gën a dund nga dama defal. Mhm. bàyyi ko. Pape Ali ku may defal nag may defal ci bi mooy dund. Ah. ma xur ñu nag man loolay dëgg. mënuma kaa fay ci àdduna. ndax bi ñu commencé def théâtre dama jóge aseg naa fekk ko ku amul quatorze mille francs de solde ñu premier def suñu publicité mooy Sénégal Tour ndaw si ñëw wax wax nag moom mu ne ko sept cent mille ma ne waaw man damaa déggul tubaab sept cent mille mooy la Mako non on refuse catégoriquement non non <laughs> je ma ne ko ruy rejet mu ne rejet bañ naa ko tudd duma ko beeg ngoon ma ne ko ma ko yow man may am quatre-vingt mille fois yow mu ne eh maa la indi. Mm-hmm. maa lay présenté bay ma ñoom man xam naa. Mm-hmm. li ñu mën bu ñu ko mën woon lu ñu jël ci. ndax ci dara ñu ne je vous donne huit cent mille avec vous l'habillement ne ko un un million rek nous allons nous habiller nous-mêmes wutal suñu bopp yi Sénégal tukki lañ doon def. Mm-hmm. mu ñëw mu ne ma ndaw si di nangu na ma ne ko lan <laughs> ah mu ne ma nangu na nangu na euh, ku ne dana am cinq cent mille ma ne ko xaalis ban mu ne xaalis yow mi nga dangaa dee xam nga <laughs> keroog bi ma joxee xaalis eh. damaa compté ba midi may compter ci pël bi yàgg compter compter man kooku noogaay si ma ne muy noogaay muy ñaar fukk ma téye noonu ma ko ma compter compter compter compter noogaay wun caban nañ ma compter wun caban jéego man lu caban jéego ma ne ko 300000. ma ne ko tëkk sa baram rek may compter compter ma juum ci entre 450 et 500. ma ne defal sa xaalis boo ñëwee. Eh. ñu compter la sa kër. <laughs> fekk yow xamoo xaalis danga tiit lii ma soo ko am bi nga juddoo bi léegi xam nga li ma yaboon. Eh. ma wax la nag moom woo bis mu ne ma. Hmm. lii du yàgg de théâtre bi lee mu jeex. wallaay leen yuuxu la nga romb ci mbedd mi lay yuuxu. loo am defaral si kër defal say doom say hmm. doom yi nañu jàng. Hmm. ñu bañ a torox. wutal foo leen def tabaxal leen nga toppatoo say doom. boo leen tabaxul wutal leen fi ñu def boo dee ñu yelwaat. mais publicité yi ngeen ci am sax xaalis bu bari. xëy na bu booy soog a xew. booy soog xew waaw. di nga am public di nga am xaalis bu bari parce que loolu laaj ñu jox la ko. Mhm. mais boo demee ba ci digg bi boo laajee duñ la jox dërëm parce que bu ñuy négocier yow dañu dem bay jooy. <laughs> dañuy dem ba dina saraxu nangam nangam kii kii kii kii kii ba nga defal leen ko yow da ngay taxaw yàkkamti pour defal leen ko dem sa yoon dem uti leneen. Mhm. loolu mooy li fi ne. mais pour que fay la nga xam ne moom lañ la war a fay ci biir publicité. au début nag amoon na Soclin ñun amoon nañ ci xaalis. jafe na de. bi ñu fi Soclin seetaanoon nga ko. Soclin waaw. mi ngi nii di xeeñ lu neex. waaw boobu boobu boobu amoon nañ ci xaalis. boobu li kii wax booy soog a xew rek. solal na ay yëre mbasin Serigne Bouba ko moom woon xam nga. amoon nañ ci xaalis sans loolu nag. ci école yi lañu mën a am xaalis. waaw mooy feeti école yi. foyer. voilà foyer bu ñu def feet. ci ngay amee xaalis. Mhm. kii dama ko doon yóbbaale booy bi. Mhm. sunu kii armée français bu ñu doon man dama ko jël man ko nañ dem. day toog rek. moo ko ma ne ko dama yàlla kii kii ñoo bokk dëkk. Mhm. bu ñu quinze mille lañ koy jox bariwul ma ne ko téyel rek comme doo def dara téyel mais remboursé na monnaie bi. <laughs> man baabu dafa ma doon fay xaalis. baabu fi ëppoon wër chèque. baabu fay mosul ren ba bari indi lu ma cinquante mille wala quarante mille francs ba bi ñuy dem mag loolu la ma defal. Hmm. fekk moom amoon am am amoon na amoon na xaalis ah. lu bëri da ko doon topp hmm. même kafaar li mu doon am kafaar rek moo mën a ka wax ah. amoon na xam nga léegi lan la ñu tudde hmm. les périmés périmés

comédie la comédie rek la. message du jàll. comédie désordonnée. message du jàll. parce que dafa am comédie ordonnée. ak comédie tax par occasion bi. bëgg nañ sunu ministre bi bu ko déggee wala ku ko déggul ku ko dégg na ko wax. Mhm. na fex mu wonu nu wax lu nu naqari comme tam sant nañu yàlla dund lay ba am sunu doom nek ministre. Mhm. dana kontaan. am am am ngeen jaadu. am na jaadu ndax bàyyam lañu. Mhm. loolu nekk noonu nag moom guddi fu ne fekk nañ ko 31 décembre. daan ko fekk port wala ñu fekk ko nuyu di fa mu ne moo yaa ngi ci jàkk yéen ngi wër ma ne ko Youssou bi dépense bi moom matagul <laughs> mu ne ngi ci biir di doon lu ngeen nekk fii dugul xaalis ma ko ne ma dañoo matul mu boole ñu ngi jox ñu xaalis nuñu comme yàlla def na nag nekk na suñu ministre titulaire te ñun ñu fi des ña leen dem nañu ndax ñu mun cee jaamu yàlla mun a mun a sàkkal ñaari pexe saraxal leen tuuti na fexe seetal ñu daal lu mu a mun a dimbalee. Mm-hmm. fekk ñun amuñu sens boo xam ne ku fi àll traité ñu defal ko hommage. pour affaire xaalis ñu am ndimbal. préparé nañ ko fi mais ça marche pas. mais xam nga ñuy dem yëpp bu ñu amoon benn soirée ku ñu jàpp artiste yëpp. Mm-hmm. kon ñu am sens. Mm-hmm. ñun nag ñoo amul sens. et puis fekk man bi ma ko dund amul ku waxul la nga yóbbu. wax naa ko Youssou. Mhm. wax ko Thione mhm. Seck. Mhm. wax ko Pène. wax ko Baba Mar ma ne ko yéen tournée yi ngeen def pour maag ma xurij ngeen yóbbaale ñu fayal ñu billet. ñun bu ñu demee bu ngeen jëlee pause immigré yi nekk foofu danañu sarax nu mën a ràmba suñu billet. mais amuñu chance kenn mosu ñoo yóbbaale fenn. kooku nag suñu sens la. te ma wax la ba ah. ale amul benn ministre boo xam ne mas na ma wala président de recevoir ma mënu la mosul am. ah bon mosul am. ak bàyyi yow li nga. mooy yow. lu ma leen gis sax. dem nañ fi euh, prix euh, au football ñi. Mm-hmm. bi ñu demee bi ñu teg euh, le prix du pardon. Mm-hmm. bu Mansour Sorowaat. Mansour Sorowaat. ñun man maa ko joué woon ak Roxaya ña maa ci doonoon papaam. mais bi ñu paree waaw daf leen wax ne. <laughs> daf leen wax ne am na ñaari artistes yu joué woon ci film bi ñu ngi fi bon ñu fekk ñu ci kaw.

moo tax ma ne bon aw ma chance président hmm. recevoir ma wala ministre recevoir ma. Hmm. mais na quand même am na nit ñu baax ñoo xam ne ñu ngi may recevoir. dama hmm. defal lu ne. waaw loolu nga man premier ministre jaar yëpp kenn mosuma ci recevoir maire jaar Ndakaar yëpp kenn mosuma ci recevoir bi ci Xalifa Sall mi. ah xalifa xalifa xalifa. mosuma recevoir waaw waaw na leen recevoir def naa lu ne lu yi wax nañu ko ko. mais man te noo bokk lépp. xale xam na ma bu baax. Uh-huh. noo bokk lépp. mais ay xaayam bu ma fekkee fi même kër bi ma def sama perte bi aram tububee. Uh-huh. le perte bi la ñu jaaxle. mu ne mais bay fële dans ce pays dañu ko bàyyi pële gi fii. léegi uh-huh. su na ñëw maire ñëw naa maire mais dara Pape Diop mosuma recevoir Babacar Ndeye kii Souleymane Ndeye yaay dem na fi bari mosuma recevoir. Mm-hmm. comme man nag nee na ko ñun du ñu géwél mënunoo woy mënunoo taasu mm-hmm. ay message rek la ñuy jàllale mën nañu jàllale message nag loolu mooy suñu liggéey nag xam ne campagne fii amul fi région mu ñu taxawul fii fii Sénégal mm-hmm. amul man de du ma taasul kenn ndax mënu ma ko région yëpp laa xam moom lañu taxaw mais léegi man su ma xoolee théâtre du bokk comme yéen yi ngeen doon def non bokkul bokkul xale yi dañu gaaw a beeru ñu gaaw a beru ñu gaaw a beru. gaaw a yëkkati mbagg loolu la te bu fekkoon ne sax dañuy bu ñu defee jël benn mag moo xam ne ki ancien la dugal leen seen biir mu dina am ñu leen diversifié bokk ak joué ak ñoom du problème parce que li tax suñu association bi jóg loolu la pour que mën a nekk xale yi di leen tette ñun amatul lu ñu wane de amuñu lu ñu wan kenn àddina amul kuñ fi wane ñu bopp xale yii xam ne ñoo topp suñu ginnaaw loolu lañ bëgg mooy mais nag bu ñu bëggee ñu yéeg itam mel na ñu ko ñun mag ñi te xale yi noonu leen fi indi. Mm-hmm. loolu xale ci ñun la ñu copier ba tax ñu dugg ci théâtre bi nag bu ñu jàppale xale yi nañ ñuy gëstu. Mm-hmm. waaw mm-hmm. xale yi ba ca war sax ko. xale yi seen i leen jàppale sax jar naa laaj loolu parce que man damaa gëm ne xale yaa ngi joué wante yéen da doon baax tamit xale yooyu di joué ngeen nekk seen ginnaaw di leen xelal di leen teg ci yoon. mais mooy dëgg loolu la mooy yoon. loolu la moo tax ñu former association bi ah. amuñu en gos yi nangu ñu ñu liggéey ak ñoom xam nga léegi xaalis bi bari la ma ne la ñu bu ñu am ci xaalis daa bari ñun daawuñu ko am. mais ba ñu wax ci rafet yi mu ngi fi. xalaat bu rafet baa ngi fi jëmm yaa ngi fi théâtre du daw du course nag. ni ñu kii toogee ma toogee nii lii nag mooy théâtre. wax wax ju rafet ànd ak ñoom di fee nga de seen. fekk wax ji mu am solo ak message yi pour mu jàll. Mhm. mais xam nga wa euh, ñun bi tollu ci jaay ko te tur bi sax dafa bari léegi. bu nu joué Pabal bu nu joué pièce bi pare dañuy toog ñu audité représentant ministre bi day toog. Mhm. ñu audité pièce bi mu jeex tak lu ci ñaaw ñu dindi ko du jàll. ah du jàll. non dafa amoon comité de ah. lecture. comité de lecture comité de lecture la ñu amoon ñu. lii la affaire bi xam nga lan la. Mhm. fi mu ne ku defar sa cassette rek ñëw yóbbu ci télévision. directement mu teg. bu njëkkoon mais télévision bi moom mooy filme théâtre bi. Mm-hmm. boo indee scénario bi ñu mu am comité de lecture boo xam ne day liir dañuy ku ci nekk dañ koy jox. mu mm-hmm. xool mu xool scénario bi lu ci erreur ñu dindi. ne la li ka dindi ko seetal loo ko ak nga dindi ñaaw tamit. waaw bu ko defee nag buñ ca jógee. kaddu yu ñaaw yi waaw man des fois nga dem ba dégg ci biir théâtre léegi lu lu méngoog saaga. saaga la kay. waaw saaga la. Mm-hmm. parce que mën na ko àggale lu dul ay saaga. waaw départ baaxul bon arrivé du baax. xam nga moo doon suy benn pièce yi. maa ngi Ibou ab yaa ngi koy fàttaliku. Hmm. xaali. xaali mu accident si usine ba Ibou hmm. mu gumbo ci film bi. gars yi def délégation mbay délégué mi tey mi nekk Italie ñu jox ma 300000 mu ne boo demee joxal ko Ibou Laye. Hmm. ma ànd ak benn góor bu ñuy wax Soro Malick. ci dëkk. ñu dem may dindi cent cinquante mille jokk def cent cinquante mille def sama poche. ñu génn booy bi ne nii. ñëwal géew ma ko yow nag na dootuma ànd ak yow de fekk man xale bu mel nii rek laay bañ ma yëkkat dix mille francs jox ko mu ne ma dolli ma dolli dix mille ma yow su yaram dawul yow Ibulaay nga ak ñu jox la trois cent nga wàññi cent cinquante di ko indil hmm. noo juyoo ak Ibulaay nag mu ñëw isin ba fekk ñun génn nañu hmm. moom tam mu ñëw di remercier gars yi ne waaye gars yi def réunion waa kontaan nañu soob yàlla na leen yàlla fay man kay li ngeen jox euh, alaaj Umar indi na ma Umar ba jox na ma tey cent cinquante mille li yéen a ko jox loolu mbay di léegi mi daal di tëb ana <laughs> ana ana baypul ana maa ngi ci itin a ma ana sóoro Mali ñu ne ma kuy sóoro Mali mooy xale bi ma ànd mais ma dem siyaare ci daal teewoon gaa yi sa dugg fii dana jàpp de dañoo doy sëriñ bi sa situation de sëriñ bi dëggal moom maamam ngay caata ana sóor ak <laughs> ma arrière waaye da ngaa demoon Tiwaawan. waaw xam nga ni ñoom boobu tan la ñuy waaw xam lu baax la ñuy déglu. lu baax waaw waaw waaw alaahi. Serigne mënutul déglu ni. déedéet du mu seetaan ma lu ma neex lay am. waaw eh, dañuy réebital rek. waaw eh, sëñ ma ne ko jub naa leen mbàkk xaalis bi manqué rek. Eh, loolu yàlla loolu yàlla loolu yàlla. sëñ <laughs> Bara moo doon wax loolu <laughs> yàlla. ma ne ko dinaa doyal leen mbàkk la laa laissé rek. <laughs> mais commission de tourisme comme ça boo leen doon joué ba pare dañ doon teg euh, théâtre bi xool ko. waaw bu ñu bu ñu joué ba pare. Uh-huh. dañuy def critique bu ñu xëyee répétition dañuy def critique ku ci nekk ñu critiqué la ci li nga def duñ ca gisee ñu critiqué la. la daan def léegi boo gisee artiste boo gisee artiste sax war ko def benn remarque rek. mu war ko jël accepté ko sax da lay. xew mais te Pabal ñun on est mal placé. Hmm. pour wax ak artistes yi. Hmm. dañu mal placé parce que kuñ ci waxal. mu ne la ba tolloo. ba nga ca toll wala da nga ma iñaane waaw da nga ma iñaane ndax jaar nga fi am nga li ngay am moo tax du nu mun a wax waaye li nu li ñu ciy gis ci rëq-rëq du jeex mais mhm. bu nu waxee ñoom fu nu féetali waaw des fois nga gis sax le euh, ah. théâtre boo xam ne du saf neex du saf naqari doo ree doo si mm. jëlee message doo Eh? doo ree doo si jëlee ah, message da nga doon déglu li nga xam ne moo di théâtre nga gis mu am message am humour si biir humour bi ngay ree mais justement mais loolu nag amatul et puis am nañu encore xale bu feebar parce que da Camara ay da Camara si jëlee mm-hmm. ndey dafa feebar ndey xadi bu Ibra mm-hmm. moom sax mu ngi faan feebar bi yàgg na mm-hmm. day xadi wallaahi day xatam dafa feebar pare xaw ma dafa ah, paralysé man nag dégg naa est-ce que gars yi da ngeen def xawante yi bëri woon non non gars yi dañ koy waxale waxale yonent bi duñu xool duñu xawante tabari ah. taluñu ko yëngal butéel yëngal mooy yow bala ngaa xawante kenn am loo lekk da nga loo lekk lu am lekk di xawante wala nga yaakaar boo xawante danga nga avancé mu yéen man man de man de xamul lu xawante théâtre yi nga xam ne fay ñu la ci dara yow même bu defee sa cassette ba pare lañ lay lañ ci gën jàppal 2 millions lañ lay jox 1 million 500. Mhm. nga séddalu ko artiste yi koo ci ba noppi lu weex di la xaar. kon day xadi bu Ibra Italia. Ah. dafa feebar. waaw kooku war na ñu bàyyi nag ba mu ba mu ba mu. voilà ah, moom la ñu nar naa la ñu nar Ibrahima ñu ngi mi Ibrahima ñu ngi gisatul moom tamit ah. Modou Diagne a nii day dox day dox di dem rek waaye day këlën këlën yi. pen hmm. ñoom ñëpp dañoo feebar. même pen un peu malade pen. pen dafa feebar. demul woon Kaolack sax. Hmm. daa xaw a feebar ci feebar bari na lii daal moom daal Pabali. Hmm. li nga def ni daal moo koy faj defal ñu apel ñu wax lu nu naqari wax ñu feebar ku nu mun a dimbali ci artistes si daal loolu mooy loolu. du du du force nag mais comme c'est un devoir quand même. maanaam la kat. force la ci ci ci gouvernement bi fi nekk. bi nga wax force la parce que ñoo war a jàppale artistes yi. waaw mais il man du ma leen du ma leen raay. de la culture. Ah. war na mën a jël ay matuwaayam. waaw dëgg bu nekkee ne artiste dafa feebar. Mhm. mu ñëw taxawu ko. ah taxawu ko ni mu ko parce que ñeneen ñoo xam ne tamit ñi ngi taxaw ñeneen te ñi ñi mérité nañ ko yéen mérité ngeen. attends du ma leen raay. parce que ñoom ñoo ñu war a defal artistes yi. waaw mm-hmm. dafa am loo xam dañ daf leen war loo ak artiste dañu war a jël gëddu artiste jox leen. noppi jox leen loo xam ne ni moom la ñu dundee. Mm-hmm. mooy dëgg parce que lu leen naqari. noo koy wax mm-hmm. te dara duñ leen ci duñ ci fekk dara du leen ci fekk am na nuñ koy waxee ci waxin wu rafet xam ne ku ci nekk dina ko jot ne lii yaa moom ñoom mënuñu ko wax ñun ñoo koy wax bon nag ki la a waxal loolu mais dimbali ko jàppale ko. loolu mooy dëgg xam nga émission bi. Mhm. bu ko ministre bi jour xarit ministre bi gis ko wala directeur mhm. message bi day jàll bi nga def nii. Mhm. ñu bari dëgg nañ ko nag. ku ko bëgg a dëgg dëgg nag ku ci bëgg a dimbale dimbale ñu ci lii. te ku la laaj fu ma gisee gars yi ku ñëw ci yow nga jox suñu numéro téléphone. yow xam nga ko. bu baax nañu ñëw ci yow rek man defoon naa fi sorti mais amul amul suite. man daal li lu parce que loolu artiste waxuma sax artistes yu ndaw mais ñun artistes yu mag yi du ma ne sonn na nañu. Mhm. sonn nañ parce que kenn jàppalewu leen. Mhm. dañuy dem rek ak seen ak seen ngor. dañuy dem rek ak seen ngor boo leen ne nag bi mën nga fay jëlee 5000F wala 10000F ñu ànd bi fexe ci jëlee 5000F wala 10000F yóbbu seen i kër kooku yaakaar naa ne comme bu ñuy dimbali a dimbali. Mhm. démb yi ak ñooñu toog seen kër. ñu ngi ci dëkk bi voyager de Kaolack un peu partout dem ay Gossas dem fu di wër ci école yi fukki dërëm fukki dërëm yoy daf leen mën dimbali ci dara. c'est sax loolu ben benn war nañu euh, je pense que du bureau sénégalais des droits d'auteur tamit war na mën a comment organiser loolu pour yenn parce que. amna yo len def gis nga ba sétane légui extrait. Mm-hmm. sama allumette bi ma bu ñu teg mm-hmm. jang jàng nga ci lu bari. Mm-hmm. jàng nañ ci lu bari. lu bari je pense que mm-hmm. loolu euh, dafa war a tax tamit nit ñi di gën a góorgóorlu. Euh, pour euh, def li nga xam ne moo di seen àq ak yelleef ñu jox leen ko ba mat sëkk. Mm-hmm. donc dina doon loo xam ne daal lu baax trop lay doon ci artistes yi ak ci ñëpp. donc je pense que il faut que ñu jàppale leen ministre de la culture aussi xool artistes yi nga xam ne ñu ngi jànkonteeg ay jafe-jafe nan la ñuy jëlee ay matuwaay pour mën leen jàppale. ça c'est très important je crois. xam nga mag ma def nañu douze douze élections yi UNICEF moo la yóbbu woon douze élections yi fu ne suur nañu ko théâtre mercredi par école pour pour le gërëw fu ñu dem bay leen gërëw yi maxo yi day wax ay france ma wax ci pour wax ci wala wax ci bàyyi leen yéen président yi ngi ci yéen ministre yaa ngi ci yéen docteur yaa ngi ci yéen bay leen bu leen gërëw

ma ne ko ça dépend de. Euh, euh, nos possibilités. Mm-hmm. mais amuñu amuñu amuñu amuñu. génnuñu Medina gi. kenn génnuñu fi mënuñoo dem nga xam ne amuñu taxaw. nga bàyyi la yow yi nekkatoo ci ay théâtre wala loolu ba léegi. wala yaa ngi ci non néew ma ci théâtre ku ma soxla rek. nekkul dara wax ak man jël ma. jeex na sax ma jàppale la waaw. jeex na sax la may jox du amul lu ma mën a fajal. Ah. amul. la nga may jox. mënuma mm-hmm. fajal dara. mais nag boo nu toogee ñu ne mag ñi dañu bàyyi. loolu lay bañ moo tax ma ne ko ci am loo xam ne mën naa caa fees naa ci fees même am na ñoo xam ne dama leen joué par exemple sama dama leen laaj tous. man na ñu ma fay. man bay naa man ma xori gaañoo laa bay ah. bay naa man. bi ma xori génn àdduna man doyal naa ci yàlla lu mu amul woon ci théâtre dootuma ko am. Mhm. te mag da nga foo xam ne théâtre teraanga da nga koy xam. Mhm. boo bayul ba mu bay la nga gën a torox. moo am mm. da ngay bay bi nga amee poche bi nit di wérante yow di la dimbali mais boo toogee ba mu bay la. da ngay wéet ak sa bopp. Mhm. man bay naa man. Mhm. waaw ñun buñ ñu doon jàppale mais ñu conseiller la ñuy doon rek xale yi conseiller la ñuy doon mais ñu duñu jàppale jël troupe yi gis naa fi troupe yi comme bari na am na troupe yi ci am xaalis mais amoon ku mel ni conseil comme kii waaye bàpp waaw waaw bu ñu tegee ba def seen scénario ba pare ba teg ko sax nga teg nga ne leen lii lii est-ce que boo leen ko defee nii du gën boo leen ko defoon nii wax ji doo leen ko defaree nii du gën ah. mais nag defe nañ ne nag loolu buñ la ko santee boo ñëwee am na loo xam lay jox loolu hmm. problème bi Ah. <laughs> loolu problème bi. Ah, lu doy waar la. ñun <laughs> daal ñu bëgg yaa ngi di laajte de. Mm-hmm. yaa ngi ci yoon de. Mm-hmm. bi jàll na. Mm-hmm. dana am ci ñu ñun daal fi mu ne nii. muy président la république Macky Sall. ak Youssou Ndour ku ci ne war nañu mën a recevoir mag bay pël. premier ministre premier ministre sax ci ah. boppam. war nañoo mën a recevoir wax ak ñu wax moom.

at ngay toog sa kër sa xol du neex nga seetaan pièce mu am lum la def nga jëlee ci message jàng ci lu bari je pense que il mérite considération ak respect ginnaaw loolu tamit ñu wax xool ci ban anam lañ war a mën a jaar ngir jàppale leen. Mm-hmm. donc c'est très important euh, li nga xam ne euh, def nañ ko euh, tey jii dalal ki nga xam ne moo di baay Pël dalal ki nga xam ne moo di Baye Eli baay Allé toog ci digg bi. Ah, wallaay ñetti Baye ñetti Baye de ñetti <laughs> Baye de. te kat Baye Allé am na benn bés. <laughs> Eh. dafa am benn waay bu jógee Europe man sax waaye xaw ma ko dafa ñëw rek. Mm-hmm. daal ñu ne ko góorgóorlu kat fii la dëkk. Mm-hmm. fekk mu doon seet benn mbokkam sama mbooru kër. ñu àndi ko man ma teeg moom maa ngi koy xool mais eh, ma noonu dëkku fi kii mu nga Europe la ne nangam nangam. waa ji ne ma ah man kat bi muy bi ma waxtaanee ak itam ñuy tàggu ma daal nii daal ne man kat yow ma xaalis ah mais daal di dindi 200 euros jox ma xam nga que ne maa wala ko pare fan la man leen yu France la. <laughs> ma dal di ko gunge ba mu dem ma ne xale yi nañ leen dem bitig ba. Mhm. boobu dëgër na. Uh-huh. ñu dem bitig ma ma jënd sama ceeb jënd sama diwlin suukar tout daal di ne xale yi àcc yóbbu leen kër ga ba ma ñëwee nag laa soog a mën a nelaw la ma dugg ci bi jàll ca kaw daal di tëdd ci lal bi. xam la. wërsëg la dina dina la. Eh, wërsëg la wërsëg la. am solo donc. artistes yi jar nañoo dimbale de. jar uh-huh. nañoo dimbale de. Uh-huh. j'espère bien que euh, sa seen message bi. Euh, mhm. fi mu nekk nii ministre déglu na ko. Mhm. man it dama leen di sant di leen gërëm parce que dina jafe ñu yëkkati leen. Mhm. ay mag mais woyof gi ngeen ma wan. suñu doom ba ñëw Pape ah. pour la première fois. Hmm. ma toog ci télé wala lifit di wax lu jëm ci lii. jërëjëf musuma ko def. pour la première fois. te boobu dafa li tax ma def ko lan ma ko yéene ma am lu ma yëg. Hmm. moo tax ma ñëw. jërëjëf jërëjëf Baye Lim maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax a baax euh, di wax régi euh, bu ñu mënee def benn page publicitaire euh, ñu mën a libérer suñu invité yi jël am na benn reportage bu nu ñu Yacine Lam defaloon ci wàllu cordonnier yi ñu seetaan reportage publicitaire boobu bala mhm. ñoo ñëw mhm. foofu El Hadj Ndiaye mi dañu liggéey moom ci lu bari waaw El Hadj Ndiaye waaw. ba mu ne studio 2000 door ca kaas ba. seen la pièce ba ñu defoon foofu lañ ko defee. Mhm. da xale ba ñu rendi woon. Mhm. doomam bu jigéen bi la taw bi. Hmm. mu doon lu tuuti. Mhm. moom la euh, Ablaye Ndiaye rendi woon. si si ma. Hmm. Oh, deret di kuule boobu pièce bi man ak Ibrahima ñoo ñoo ko joué ñu ngi ko defee foofu studio 2000. Hmm. xale bi wax naa man laa wax.